jëf-jëf waa waa ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy xeex pour ñu am ay ministres yu gën a bëri je vous remercie. merci honorable collègue la parole est à l'honorable député Karim Sène Karim Sène Karim n'est pas là la parole est à l'honorable député Koura se prépare Baba Karmbang. asalaamaaleykum Thank you very much. I am Ami Ndiaye. monsieur ministre maa ngi lay nuyu di nuyu sa mbokk yooyu nga toogal ak képp koo fi àndal maa ngi leen di jox sama respect di leen wax ni woykat bi moo ni jigéen àddina la jigéen mooy sunu yaay yéen góor ñi ngeen ni jigéen jabar sama est-ce que dëgg la ci yéen jigéen sama doom jigéen sama maam ñu toroxal jigéen fii monde entier bi yëpp di ko gis same on ñi ko def te defe naa ni justice dina doxal maa ngi leen di nuyu yéen député yëpp Farba déglu ma li may wax daf ma ñëw. honorable collègue merci de laisser ministre maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay am question boo xam ne nag dafa ma jaaxal depuis ci Abdou Diouf ba léegi tey yow mii laa koy laaj àddina bépp ma jàkkaarlook ñoom mooy ba ma fi juddoog léegi day damay dégg ñu ne Abdou Diouf dafa jaay géej gi ma toogaat ba ci yàgg. sunu maam ab Ablaye Wade ñëw ñu ne dafa jaay géej gi Macky Sall ñëw ñu ne dafa jaay géej gi waaye monsieur le ministre gindi ma kan moo ci jaay géej gi te dama bëgg a xam ni est-ce que ñii di wax loolu bés bu ñu toogee ci réew mi mbaa duñu naan géej gi mbaa duñu yey jën yi ci géej gi ak rab yeeg jinne yeeg yu kenn xamut gis nga fii senegaal la monsieur le ministre fii la yàlla teg fii la la teg sàcc mooy xam sàcc gis ngeen yéen te ngeen di muñ rekk fii leen yàlla teg ci jamono bi ngeen tollu doo leen mës a dégg lu baax mais ñi yàlla jox xel ak xam-xam xam nañ ni yéen a ngi doxal réew mi waa yaraax ñoo ma yónni ñu ne seen marché boobu dañoo bëgg nga dimbali leen ci waa ñooro yónni ma fii ma toog nii ñu nii dañu bëgg ay oto jën te xam naa ni di ko def parce que yéen noonu ngeen mel nee naa leen président Macky Sall du far kangaado gis nga réew mii ñu nekk gis nañ fi ñoo xam ne dañ leen di fay deux cent euros pour ñu mars sàcc yi wuyu yi violeur yi ci réew mi sénégalais yi ñu ne duñu ko wax nguuru Macky Sall ji duma lebu de waaye Diouf saar mii su waxee man damay d'accord ndax mooy lebu bu mag bi su ne Macky sàll def na ci pes bi mooy def na ci pes bi ngeen gën a yokk seen ndimbal ci ñii di napp ndax ñun ñoo koy lekkaat marché poisson bii nii nekk fii diggante Pikine ak Yaraax man su ma fa demee damay kontaan parce que man dama bëgg jën njaayeen laa may ñu jën <laughs> monsieur le ministre may ñu jën waaw kay gis nga réew mi ñu nekk xam nga lan la sénégalais yi war a wax dëgg la yéen lañ fi teg jox leen pour ngeen jàppale askan wi yàlla na ci askan wi gis seen bopp te yow mii ma gis nii nit ku baax nga maa ngi lay doog a gis tey nii jëmm ak jëmm mais nit ku baax nga gis nga Sénégal dañ dul wax lii am soo ko waxee ñu joxoñ la man bañuma ku ma joxoñ de yàlla dong nga ma tiim nag ma tiim sama bàmmeel dama ni nañu wax ci criminel yi nekk ci réew mi nañu wax bàyyi polo yi nekk ci réew mi di disrespect réew mi nañu wax ñiy saaga réew mi bu nappkat yi indi jee jën te ñi ko war a lekk seen xol yi dee mooy li xew ci réew mi fii la ministre justice toog góor wàcc fii fekk jigéen mu toog dóor ko kurpeñ keneen jóge fële ñëw këdd ko Sénégal gépp di leen seetaan ñu ne duñu ko wax man moom ñu yore ma ne yore jàll ca Guinée parce que góor a jóge fële ñëw fekk ma fii ma tox engagé man

Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, euh, ñu ngi leen di nuyu di nuyu bu baax a baax tous les collaborateurs honorables députés chers collègues ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp monsieur le ministre bëggoon naa balaa may jël kàddu rendre hommage à la fédération nationale des pêcheurs sur toute la pêche artisanale amoon nañ suñu benn góor bu baax bi ñuy wax Baye Ablaye Fall nekkoon na fa président pendant presque vingt ans bokkoon ci ñun am lu bare loo xamante ne def na ko ci pêche donc euh, bokk na aussi ci ñi nga xam ne may nañu ñu mën a porter tey préoccupation wu pêcheurs monsieur le ministre Hann Bel-Air ngi lay remercier di la féliciter ci complex frigorifique de dernière génération bi nga xam ne moom ngeen fa nekk di def di leen remercier également pour toilette ak hangar bi nga xam ne commencé nañ ko def donc euh, ñu ngi rafetlu bu baax a baax le directeur de l'ANAM Achille je crois qu'il est qu'il est là donc euh, monsieur ministre bëggoon nañu wax tuuti ci lu jëm ci wàllu immatriculation wu pirogue immatriculation wu pirogue yi commencé woon na mu nekkoon benn élément bu am solo ci pêche artisanale tàmbali woon nañ ko mais gis nañ ne que taxaw na parce que loolu bokkoon na ci li nga xam ne dana yombal ñu mën a identifier ñi nga xam ne ñooy acteuru pêche ak seeni boroomu gaal parce que gaal yëpp ku ci nekk am na tur ku ci am sa tur nga tuddee ko waaye duñ en cas de recherche duñ leen mën a identifier donc programme boobu doonoon nañu demander à que ñu mën ko relancer jàpp nañ ci biir yi wàll boobu également sécurité pêcheurs yi utilisation GPS bi am na solo gis nañ ne que gaal yi ñi ci ëpp ci ñu mën a utiliser. bu dul capitaine bi ci topp ci moom la donc ñu gis na ko formation utilisation utili utilisation GPS am na solo pour ñi nga xam ne ñi ngi ci biir toujours sécurité en maire war nañu mën a am système boo xamante ne dina bokk ci li nga xam ne mooy aar parce que gis nañ ces dernières années ne ñiy réer biir géej lañu bari te li ëpp li nga xam ne moom nañu constaté c'est que balaa marine